moom ñëpp xam nañ ko doomi sëñ Mouhamadou Mamour Niang fii ci Touba moom mi ngi feeñ jamono fii ci Touba jàngee alxuraan tamit bu ñu wax Mousra fa la lu jëm ci wàllu alxuraan jàng tamit wàllu diine lislaam wàllu mu saraaya ci école Cheikh Ahmad Mbacké sama ngay xam ci Jurbel jànge na tamit ginnaaw bu jógee foofu lu jëm ci wàllum i'dadiya sanawiya ak ba ci jànge ak université ci réew mi wax Maroc fa la doon jàngee yooyu nga xam ni mooy li àggale am njàngam ci wàllum ba am BFEM am bac ba àgg sax ci université ba mu ko jógee ñu ngi soit ci dëkk bi ci réew ci Sénégal di yënguwaat ba léegi ba léegi ci jàngale ba léegi continué ngeen jàngale jàngale ci école gouvernement bi nga xam ni ci état Sénégal bokk na ci ñi xam ni daan na fi jàngale di ko boole. di jàngale ci école Soumar Laye bi mu ci jógee tamit jàllaan na ba nekk inspecteur ci wàllu jàngal yokkaat alli moom nekk ci biir yëngutu jàng jàngale ba nekk ci inspecteur arabe boo xam ni ci Sénégal ci année 2008 ci la nekk inspecteur arabe ba léegi nii ñu ngi iyaa Diourbel nekk comme inspecteur bokkal tamit ci xam naa ci kuréel ci gàttal ko rek benn membre la ci daayira Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne la sëriñ sëriñ Saliou joxoon ndigal ñuy taxawee màggal la ca la bokk benn kon day mel ni moom yëngoom yëpp nekk ci diina la yëm jàng ak ak yar te moom lañ xamee ko waajuram sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké nag moomu moom lañ war a amal tey jii jataay bi fii ci pencum Daaru Salaam ngir waajal màggal Daaru Salaam ànd ko comité bi nga xam ne yor wala wàllu organisation màggal dia Salaam liñ bëgg nag mu waxtaan ci tey ñu nafarante ko mooy yoonu bi ak muridiyya wa tahdiyatuha al wa yoonu ak yi nga ñoo ci bëgg ñoo ci dugg ñoom lañ koy dugal xëy na yoo xam ni ci biir réew ci biir yoon la nekk wala yu nekk ci yoon wi te bokku ci woon ak yoon bi lan la ko Sëriñ Tuubaa yi nga xam ni ba léegi est-ce que am na yeneen yu ci dugg yoo xam ne ci lañ ko waajaloon waxoon ko ak ñun ngir bañ a dugal ñu wax waxtu wi te koy jox mu dugg ci waxtaan wi rek sëriñ sa ñu jox la kàddu yi ñoo waxtu yi balaa gën a gudd bismillah rahman rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin الدين jërëjëf ci kàddu yi rafet na matale ñoo ngi am mbégte di bokk ak jotaay bi sang su tedd si teew ñi ma ci jot a ràññee ak ñi nga xam ne xëy na jotuma leen ràññee ñëpp ma leen di bu baax baax di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi kilifa ëtt bi nga xam ni benn ci ëtt yi Sëriñ Tuubaa la ñu am mbégte bu baax baax nag di bokk ak jotaay bi waajtaayu màggal màggal bi di rafetlu yi ci jot a jàll am na yu ma ci topp muy rawatina yi ñu defee Dakar euh, seetaan naa ko programme bi li ci des tamit euh, gis nañ ko dafa mel ne ren buñ ko dendalee ak yi weesu ci li ma ci xam dafa mel loolu nag ak yokkute la ak jëm kanam la ñoo ngi koy rafetlu bu baax baax. di ñaan yàlla nangu yëngu yépp def may leen ci ngërëmam kon ñoo ngi bu baax a baax jotaay yu mel nii nga xamante ne leeral lay doon ak weccante xalaat mbokk yi kon ñoo ngi leen di ziare ñépp di bu baax a baax taxawaay tomb bi ñu sàkku woon ci ma weccante ci xalaat wax na ko léegi al muridiyatu wa taxadiyatul xaarija wa daaxiliya yoonu murit ak yi nekk ci kanamam moo xam yi nekk ci bitti yoon wi la wala yi nekk ci biir yoon wi la su ko defee incha allah waxtaan wi ginnaaw laytaay bi danañ fàttali rek ci anam bu gàtt lan mooy yoonu murit danañ wax tamit ci lan mooy taxaddiyaat yooyu mooy yi nekk ci kanamam danañ wax liñ jàpp ni mooy saafara ak kàddu tëj danañ góorgóorlu tamit sunu kemt lay kàttan mu baña eh, ya a lol jotay bi eh, ngir sàmmante xëy na du ñak ci sang ci ci tew am na ñoo xam ne ngi yàgg ci ay activité moo tax bu tënk ko it ngeen jappé ko non ci tambali bi ñu ñëpp gis nañ way bi nga xamni l'islam tollu nako ci jamono ji yoonu murit toll ko ci jamono jii nga xam ne dañuy wax ni bu dund gi doon géej yoonu murit looco lay doon ci biir géej googu vague yi mi ngi koy jóge fu nekk nga xam ne buñ ci taxawul rek looco bi walla bato bi mën naa këpp ndax géej gi dafa yëngu noonu lañ koy melale fu nekk ni tolluwaayu àdduna bi ci ci wàllu géopolitique ci mouvement yi am ci àdduna bi yoonu murit nag nekk benn kuréel ci biir kuréel yooyu waaye fu nekk ni àdduna bi ni muy doxee dafa am yëngu-yënguy boppam dafa am lu mu ràññeekoo li gën a fës yi mu ràññeekoo fu nekk ni ñu toll mooy li ñuy wax xayaat maddiya mooy le matérialisme woo xamante ni daanaka ruux amatu ci yoon nit ñi léegi daanaka dundu dundu euh, euh, consommation rek la ñuy def wàllu dafa mel ne da ci xaw a néew doole ba tax na am na ay kàddu yu jóg wan dañoo war a gën a jox yitte yar dañoo war a gën a jox yitte li ñuy wax jihaadu nafs muy xeex bakkan gën koo yar gën koo not loolu moo mën a saafara am na ñoo xam ne loolu lañ jàpp fu nekk nii su ko defee nag Euh, lu mel ne ki yoonu murid nga xam ne dafa nekk bokk ci kuréelu sufiyanke yi te sufiyanke yi bu ñu leen waxee mooy ñi nga xam dañoo ràññeekoo ci mën nañoo wax ne daanaka wan ginnaaw àdduna not seen bakkan euh, doyadal àdduna ngir waajal alaaxira yoonu murid nag bokk ci kuréel yooyu doon kuréelu sufiyanke su ko defee ñu jàpp ne bu pharmacie amone buy jaay safara ay garab médicament pharmacie moy pharmacie tasawuf tasawuf japp nañ ni mën naa lijjanti lu bare bare euh, bare su ko defé kon ci tambali bi nak dañuy wax rek dañu fatali ci anam bu gatt yoon murid bi ñuy wax al muridiya buñ ko waxé fii ci Sénégal liñ ci euh daanaka man nañu wax ni sax sufiyanke yépp buñ waxé al murid rek mooy koo xam ne yàllaa ko soxal ci yoonu yàlla la la teg jëm ci sunu borom su ko defee nag ñun buñ ñu waxee yoonu murid dañuy wax ne xeetu yarin la yarin woo xamante ne sëriñ bu mag bi muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu moo ko indi euh, ràññee ko ci ci anam boo xamante ni ci biir senegal gii ñu nekk keneen yorut anam keneen ràññeeku wuti woon laataa moom ci xeetu yareen yu indi néewuñ yarkat amu fi woon ay yarkat ñu ngi foon ay borom xam-xam ñu ngi foon waaye bi mu ñëwee ci anam bii mu indee yar keneen mënu ko woon ci biir Sénégal looloo tax moom boolewuñ ko ci kuréel yu mag yi fi nekk mooy xaadiriya ak tijaaniya donte nag foofu la juddoo ci xaadiriya la juddoo ku tedd ki tamit jëfandikoo ne wirdu chaazili jër nag jëfandikoo ne wirdu tijaaniya waaye ginnaaw bi mu am wirdu boppam waaye doxalin ak yarin yu doon def moom moom lañ ci njëkk a xam fii ci senegal ci anam bu mel noonu kon xeetu yarin la bu ñu xeetu yarin la boo xam ne sëriñ bu mag bi moo indi doon ci eh, yar àndaloon waaye ci beneen anam mën nañoo wax ne la xeetu dundaliinu diine la xeetu dundaliinu sunna hmm. moom bu jàpp ni noonu la war a def ndax dafa misal diine mu mel ne kër goo xamante ne dañ ko dëkke woon ba mu yàgg ñi fi dëkke bàyyi ko noonu toppatoo wuñ ko ba mujj mel ne lu ràbb mu mu bëgg a defaraat kër gi ba ba ku ko gis xemmem kee dëkk loolu la def looloo tax mu ne moom àdduna li ko fi taxoon a jóg mooy yeesalaat sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam lil Mustafaa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu wa inni ahmad kon loolu moo nekkoon jubluwaay loolu nag bëggut kenn ku nekk ko ci demee nu ko neexee moo tax ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo aju ci moom dafa am aw doxin woo xamante ni moom moom la moom la jàpp ni moom noonu lañ ko war a noonu lañ ko war a defee su ko defee misaal moom mu ñu wax léegi ci kër googu nga xam ne diine ji mooy kër gu mag gi waaye ñi fi dëkkee ñi ngi fi rek dëkk ci nii waaye toppatootuñ ko bàyyi ko mu poussière mel nu nekk ba ku fi ñëw boo fekkut waa kër gi sax da def ne fii nit ñëw ko fi noonu la diine meloon ñàkk pëseef ci jamonoom ay jamono bi ñëwee fekk nit ñi dañoo ñàkk pëseef pëseef amatul néew lool ba li gën a not ci ci jamonoom ay nit ñu ñàkk pëseef lañu woon mooy li lii su Musaa ko doon wax kenn amatul xasd li wajhillaahi lu waay di def rek njariñu àddina moo daa tax mu def loolu nag buñ ko waxee mooy li ëppoon li gënoon a not ay nit ñu baax ñu ngi foon ay kilifa ñu ngi foon waaye li gënoon na not ci dund gi jamono yooyu mooy nit ñi seen bopp seen bakkan lañ toppoon su ko defee nag loolu tax moo xam ne nit ñi fii ñu jëm ku leen xettaliwu boo wutoon du baax mu daal di mu daal di solu mbubbum yeesal mbubb moo xamante ni ngir yeesal ngir jubbanti ngir sobe aw askanam daal di commencé woote ci Mbàkke Kajoor am ñu ko wuy si am noo xam ne woote ba dooyu leen ñu dem ña ko wuy si woon mooy nawaatul ula mooy li ñuy wax cellule bu njëkk bi noyau ci la loolu juddoo ba mbir mi egsi fii mu egsi tey ak li ñuy dégg ak mu egg mu leen kaa ci selal di len yar ci tuddi yalla jang alquran tagat seeni cër ci liggéey liggéey bu am njariñ ak yeneen yu dem non ak sam sa eh, bañ a sànk waxtu loolu tax Cheikh mohammed lamin job dagal bi ko laajee almuridiyya bi bu eh, koy wax al almuridiyya mo len def dal huwa al ikhlas alladhi al ikhlas alladhi huwa ruhul amal ikhlas manam selal nga xamni lepp loy ya, defal lépp looy wax sa sa dal sa yëngatu lépp yàllaa ko tax na ci loolu nag nit ki day dem ba nga xamante ne ci li ñuy gis ci moom ak li nëbbu lépp ñooy yem ci moom lu ne ay xalaat yi xalaatinam waxam jëfam léppam rek yàlla la koy la ciy la ciy ci loolu nag moo tax sëriñ bi ci boppam moom Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu di wax ne murit bi daal taalibe murit mooy ki nga xam ne bëggut lu yàlla lépp lu muy def tamit yàlla rek moo tax mu di ko def wasful muridi tarkuhul iraada li wajhi man yafalu ma araada dafa waxaat ne idil muridu la yuridu abada gayra rida rahmani xaytu qasada kon foo ko gis muy dem yàlla moo jiitu moo nekk ci ginnaaw kon moom dafa ñëwoon ngir waajal aw askan aw mbooloo moo xamante ni dañuy xam seen warteef am yëg-yëg bu ci ne dañ koo war a tegoo am yëg bi ci wàccuwaay bi eh, seen responsabilité am ci biir askan su ko defee yar bi nag làmboo lépp ba na doon yaru yenn ñi nga xam ne ay màddi yoon rek lañ yar bi di laal xel mi di laal yaram mi di laal roof bi ndax nit tamit luñ mën a laal la ak luñ mënta laal liñ mën a laal mooy yaram bi ak cër yi yiñ mënta laal mën nañ koo tudde xel mën nañ ko tudde roox mën nañ ko tudde nafs nañ ko tudde lu ñu neex waaye yaram bi mu indi moom ñett yooyu yépp faaw mu ndax xel mi xam-xam koy dundal yaram gi muy dund ak yëngute moo koy dundal roox gi jaamu yàlla moo koy dunda ci yooyu mënta ñàkk ci ci nit moo taxoon ab yaram moom ñett yooyu yépp la jëloon ci loolu it buñ demee ci alxuraanul karim euh, loolu lañ tey fekk yàlla bi muy wax bi muy wax jullit ñi naan laqad manna allahu ala almuminin id baata fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin kon gis nga tazkiyatu nafs kon nit day mujj doonatul rek aw yaram doonatul rek lekk ak naan waaye tamit am na beneen dimension beneen bordu boo xamante ni war nañ ko bàyyi xel ci nit su dul loolu rek dafay xaw a jegeeg mala mooy ne kon xel mi war nañ koo tàggat ci xalaat lu baax ci xam yu am njariñ roox bi war nañ koo tàggat ci mu jaamu yàlla di dellu ci boroomam yaram wi ñu war koo taxaw ba mu am kàttanu dékku coono yi looloo tax nag Serigne Touba ngir bañ kenn di ko interpréter kenn di ko waxal lu mu moom moo waxal boppam lan mooy yoon wi mu indi te loolu mooy bi ko tubaab bi laajee euh, mooy borom ndar kenn daa tudde borom ndar tontu bu siiw boobu mu fi tontu woon rek lettre boobu dafa waxoon ni lim indi ci ñetti keno la taxaw bu doon nu nekk ñetti keno la bu njëkk mooy al iman wa huwa tawxid kenoom ñaareel bi mooy al islaam wa huwa al fiq kenoom ñetteel bi mooy al ihsaan mooy tasawuf benn bu si nekk tamit mu wax ban wàccuwaay la am ak naka lañ ko war a joxe yitte rawatina tawxiid tawxiid moom daf ne moo war a jiitu ci li taalibe murit bi di di sàkk mooy fexe ba pas-pas bi nekk fi ca wér su ko defee cër yi dañuy doon soldaaru xol bi loolu tax mu wax awwalu waajibi ala al muridi taxsiinu zaadihi min at tawxiid loolu moom moo koy waxal boppam chance bi yoonu mourid am moy lu ci bari mom mo waxal boppam su ko def bàyyiwut kenn mu diko waxal mu diko waxal mom mo waxal boppam awwal wajibin ala al murid tahsil zaadihi min al tawhid qabla at-tawxiid bil قبل اشتغاله بالانفراد بالذكر وحده وبالجهاد من طالب المريد لو gën li njëkk li jiitu ci li mu war a njëkk a def moy la priorité des priorités di ci jitu awlawiyatul awlawiyat moy na xam pas na am pas-pas bu sell mooy gëm yàlla ci loolu nag ahlu ci ci bu ahlu sunna wal jamaa bëggu la bàyyi nit ñi kenn ku ne di fortaatu di dem fu ko neex madhabu ahlu sunna wal jamaa la dénkaane moom la wax ni ci la nekk ci moom la bëgg mbooloo mi nekk ci wax ni nag balaa kenn di ber aw yoonam wala mu naan day doon day dugg ci niiram sufiyaanke na na na fexe ba ak gëm yàlla tawxiidam leer منتهيا مذهب اهل السنه مع الجماعه وتلك الجنه الظلمات الظلمات بدعه اعتقاد تكف انوار اتباع الهال وانا قال بس بس بسلو ليري سونو بروم مونتا نيك تي نيت لو مانا ديف تامت داكو ياخر كون غير مو بانا جارنو تي اي جامو يالا غير مو مانا ايك تي سونو بروم فاو مو ام توحيد بس بس بسلو tasawuf bi tamit fiq bi moom mooy mboolem xam-xam bu bu tax nit ki di xam boppam xam boroomam xam moroomam xam ay warteefam xam ay àqam ki yelleefam yooyu yëpp da ciy daal di dugg ak bépp xam-xam bu am njariñ bu amal njariñ na ci tasawuf nag nga xam ni mooy al ihsaan ca tasawuf indi wax ju bari ci àdduna bi ñenn ñi euh, jubuwuñ ko bari ñu ko jubu euh, ñu bari lool nak fu nekk ni ci aduna bi ci tasawuf boobu ci lay ci lay leral wax ni in kunta sa'ilan an at tasawuf likay kay tuadd min at taaruf su fekkene dag ma bëgg laaj lan moy tasawuf ma xa déglu ma leral la tasawuf mun la amna juroom ñent mbir yo xamni ni la ci tasawuf tasawuf bu baax tasawuf sunni fa li tasawufi usulun tuarafu tisatu ashyaa lada man yaaraf awaluha talaasumu alkitaabi wa sunnatul muxtaari di sawaab taqoog téereb yàlla bi di ko jàng wala nga di ko jàngale di ko dund dund sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy ñaar wa tarkul ahwaa bàyyi topp bànneex ak bakkan ci lépp looy topp bàyyi tamit topp bidaa bu ñaaw topp bidaa bu ñaaw kadaaka tabjiilu shuuxil xusha am kilifa gumat kilifa am kilifa gumat kilifa ca bañ a kom kom comme ay béy ci àll bi rek ruyatu aadaarin li kulli xalqin nit ñi tamit ñu di leen dogal ngànt nit koo gis mu nekk ci loo xam ne léeru la nga jéem koo dogal ngànt ca ba ca bañ koo tuumaal idaamatul wérde li wajhil li saxal wirdu nag du kurus yi ñu yor nii rek waaye bépp jëf joo xam ne xëy na waru la ginnaaw bu wartee fii jàllee ba noppi yow yaa koy tegoo ci jëf yu baax yi def ko muy saw sasu bopp loolu mooy wirdu bu mu ci man di doon am na ñoo xam ne kenn ku nekk na mu koy defee waaye am na wirdu yu ñu xam ci ci tasawuf yoo xam ni dañ koy jëfandikoo waaye fii wirdu moo gën a yaatu loolu bépp jëf ju baax yoo xam ne bokkut ci wartee fii sax waaye yow yaa koy yaa koy yu yàlla santaane yow ay coobarewu sasoo bàyyi tamit def ay tawilaat maanaam di xool euh, nusuus nga di ko jox ay tawilaat yoo xam ne bëgg lu yomb moo koy waral li ñuy wax wa tarku tawilin wa tarku ruxsatin maa azimatin ala alladi qad su ko defee nag bu boobaa lépp loo dugg tamit nga boole ci passé kon gis nga ko moom tasawuf bi mu wax yii la tënku ci alxuraan tënku ci sunna bàyyi topp bànneex bàyyi bidaa topp kilifa gu mat kilifa kilifa diina gu mat kilifa dogal nit ñi ngànt ci lépp lu la leeru saxal wirdo ci ci anam bu bu bu nangu mottandiku di di tawilaaj yoo xam ne sa bakkan nga koy teg wala topp yu yomb yomb yi yooyu yëpp léegi nag ak ak amuk dog ci lii ci la yare yàlla yare taalibe yu njëkk yi nga xamne ci ñett dal man nañ ko gàttalaat ci benen ñett rek moy al ilmu nafi' wal amalu salih wal adab al mardi ñett yi ci la yal mbolo bi muy leeral ilmu nafi' xam-xam bu am jariñ moy xam xam-xam bu am jariñ dal moy xam-xam bu lay taxa xam sa bop bu lay taxa xam say ayib xam nga nit ki mom bu xame bopam rek euh mi ngi ci yoonu xam mu ne wal ilmu nafi' yatawalladu min ilmil mar'i uyubahu nit bu xasse ba xam ay ayibam xamne ne doomu aadama rek la du malaka du yonent nit nit simple dafa am dafa am ay limit. Do bu ko nit ki Dan ba xam dana xam kon kan moy Dan dana xam tamit dana wacc tankam la waxna nak wal amalu salih yakudu bil inqiyad ila allah jef ju bax nak moy jef jo xamni sunu borom da ko nangu te nga di koy def ngir top sunu borom al adabul fa huwa yusilu l abda ila llah wa yuqarribuhu minhu mooy loolu mooy ay teggin ci biir teggin yooyu nag ngir euh, mu ne nag ci teggin yooyu mi ngi feeñ ji nit ki di topp ndigal suñu borom di mottandi ko ay tereem di sant yàlla ci ay xéewalam di muñ ci natt yi mu koy teg su ko defee loolu bu nit ki day def yooyu mooy kooku ko am teggin la kon mu am teggin digganteem ak boppam xam ne jëmmam ji moomu ko yàllaa ko sàkk am yu mu ko ci sant am ko ci tere teggin digganteem ak boroomam teggam digganteem ak nawle yi doomu aadama yi ci loolu tax mu ne teggin daal ci gàttal mooy yii ci nit ki war na koo am ci luñ xam ak ci luñ xamul te addaboo fii alanan wa sër maa la aliyi wa xalqihi bil bir wa jumlatu aadaabi inda al qawmi inxasarat fi xamsatin yaa qawm mu ne am na juróom yoo xam daal bu ñu wax teggin moo ko tax a jóg xafizun li xormati mooy sàmm war war may barab yi war may jëmm yi sàmm war ma rek bañ a xotti war ma mukk ci àdduna nit taalibe du xotti war ma uluwu himmatin bañ a suufe ak gis bañ a bañ euh, euh, di bëgg lu bëgg lu kawe waaw bañ tuuti bët mu ne taalibe warta tuuti bët tuuti bët mooy lan mooy topp koomam àdduna bi wala lu loo xam ne ci àdduna kese lay yem amul la benn njariñ ci àllaaxira fa nga jëm loolu tuuti bët la kuy bëgg da ngay bëgg lu am solo wa xusna xidmatin di amal njariñ askan wi ca rafetal ci xidma ci di leen liggéeyal liggéey bu am njariñ ca rafetal liggéey bi wa shukri ni'mati di sant yàlla ci ay xéewal kon gis nga ñeent nga foofu xafzun li xormatin ulu wa himma wa xusna mu ne xaamisuha nufuudu lil azima mu ne juróomeel ba nag mooy nit ki nag amul dogu bañ a doon nit koo xam tey dengi dengi jëmut fenn bu duggee lii tey bu ëllëgee mu génn ci dugg ci leneen déedéet balaa dugg ci dara na ko seet bu ci xasee ba dugg mu moy ca su ko defee nee na juróom yi suufiyanke yi loolu dañ jàppee mooy ay teggin loolu nag boo ko xasee ba am danga koy am sa digg ak sa borom am ko digg sa digg ak moroomi mbindeef yi looloo tax boo xoolee moom yaram bi daf ci am ñett yu am solo yoo xam ne moom da cee ràññeeku lool lool mooy aluwu himma xidma ak al yii ci biiram da cee fés maanaam dafa ñu fi fekkoon ndax ne moom kenn amatul qasd li wajhi li wajhi llaahi bi ñuy wax dafa ñëw ni leen déedéet lii war ngeen koo jomb il faut que ñu am yitte yu kawe di ci yar taalibe yar leen tamit ci xidma mooy di liggéey liggéey bu amal njariñ askan amal ko sa bopp amal ko saw askan ba noppi nangu kilifteef ñett yi dafa gën a fës ci liggéey bi nga xamante ne liggéey bi nga xamante ne moom la moom la moom la rek su ko defee moom aluwu himma bi euh, kawe itte bi nga xam ne moom la am euh, kooku moom bu ci nekkoon dafay doy sëkk waxtaan waaye moom ci ndawam ba ni mu génnee àdduna dara àdduna rek taxu ko mas lépp nu mu daa jëfandikoo ci àdduna dafa jàpp ni euh, yóbbal la ngir dem àllaaxira jaawartu bil furqaani rabbiyal muin malaktu nafsiya wa zahzahtu lain axadtu min duniyaahu zaadi lil àdduna lépp lu mu fi masaal daf ko jàppee lu koy jàppandal euh, ci ci ci dunduk àllaaxira dara taxu ko wona do jóg ci am danako wax sax tàll lolo tax proposition yi ko massa defal yep ci ay poste poste arme yep da ko bañ yep lata muy nek kilifa bopam bi fi wajuro mi nekke loolu yakar naa ne suñ ñu ci bari ci gis nañ ko ci téere minanu baaxal khadim Samba bi mu ci kër ga doon wax Mamour Anta dafa serigne bu mag bi ngir mu dox ko ko mu mu diko ko taxaw ci walu diine sëriñ bi bañ ko ko waxee daf koo gàntal te booba mi ngi ci daara ji doon sëñ daara waajuram bi mi ngi fi noonu tamit daf ko continuer ba ni mu génnee àdduna musta nangu postu àdduna euh, bi mu fi génn bi bàyyam génnee àdduna tamit euh, mag yi mag yi ba proposé ko ngir ñu yóbbu ci Lat Joor mu nekkoon njiitu réew ma jamono yooyu mu bañaat noonu la continuer ngir dundam musta soxla postu àdduna loolu mooy on lu waxi ma ci loolu nag la daa yar taalibe di leen teg loo xamante ni duutuñ sax soxla àdduna dañuy xeeb àdduna doyadal ko lépp luñ ciy def rek dafay doon loo xamante ni da leen di jàppale ci seen biir ci loolu la leen wooyee ci jihaadu nafs jàpp ne mooy jihaad bi gën a mag ndax noon bi nga xam ne moo taxaw yow ànd ak yow fu mu nga ne da koy xeex loolu mooy liggéey bokkut ak noon boo xamante ne euh, bokku leen fu ngeen nekk jihaadu nafs boobu nag mooy jihaadul akbar moom la woo nit ñi woko ko talibé muy bakkan ak aduna ak ak banex yoy yëpp nee nena ay non lañ wax xamanteni ken kenn mun leen ken kenn mun leen a jekku nafsan wa dunya tuma shaytanan lain hawan fa kulluha aduwun la yàlla ñu naqaree jëflante leen kon olu ma bok mom la wote won mu bok li gëna a ci ci ab liggéeyam rabbi ashabaka bil himmati kon loolu noonu la yaree bul jiitu am kilifteef tamit kilifteef bëggut mu mel ne gétt gu tas nit ñi mel ne gétt gu tas dafa bëgg ñu siñe accord mu moom ku ko nangul ku nekk jox ko sa kàddu moom it mu jox la kàddu mu lay digal nga topp ni nga xamante ni nit ki bu yëgee jàngoro ci yaramam bu demee ca docteur ba da koy wax ay jàngoroom diglu ko lu ko docteur bi wax mu def loolu la bëggoon bëggut ñoo xamante ni Eh, kii waaye dafa bëgg mbir yi leer kenn ku nekk xam lan mooy wàllam ci mbir mi ñoo bokk fu ñu jëm waaye kenn ku nekk xam lan mooy responsabilité lan moo ciy wàllam kan mooy njiit kan mooy kan moo kan mooy moo toppe looloo tax al mubaayaan daal di ñëw am cosaan nag ci lislaam mubaayaan am cosaan ci lislaam yoo xam ne xëy na du jar sax ñu ciy taxaw ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam euh, euh, saxaaba yi def ko jaayante kook moom moom it euh, kilifa yu mag yi yu bari ci ginnaaw bi niirum sufiyanke ñoom it donte dund ñoo yonent bi sax mais jaayante nañoo moom euh, sëñ Tuubaa mi kenn ci ñoom la bàyyatuhu bi fuaadi xiina lam tara la lam tara ayni wa axdumuhu lillahi mujtahid jaayante naa moom te bokkuñ sax fuñ nekk waaye pas-pas bi la am yéene loolu tax nag mu mu def jaayante mu doon lu am solo ci ànd bi ndax ndax jaayante boo jëlee bordu ruux yi rek ci wàllu diine bon du ruux yi diini bi mais dafa am tamit aspect organisationnel moo ne am mbooloo bu ñu àndee rôle yi dafa war a leer kenn ku nekk lan lañ ko sant kan moo kan mooy kan kan lañ dénk lan ndax bu sooxee amee ñu xam fan la soox bi bàyyi ko moo tax kon jaayante ci côté diine am na cëslaay am na solo ndax da ngay sàkk ngërëmul yàlla ci koo jàpp ni moo la gën a xam yàlla moo la gën a xam yoon bi jëm ci yàlla nga jox ko sa bopp waaye ci wàllu organisation ci àdduna rek Eh, mi ngi melni am rew rek mbooloo mu ànd faaw am ko jitu am ñu ca top kenn ku ne ñu ko la kon dafa am ñaari dimension yo xamanteni war nañ ko ci baye xel moom jaayante dafay boole kàddu askan mi ngi melni am rew mo amul jitu rek lolu musiba naru laay lay rek benen bi ci dess moy khidma khidma moy jamiu ashkalin nashat al ijtimai wa ar-ruhi lil insaan lepp lo xamanteni ñing koy def moo xam liggéeyu doole la wala liggéeyu xel la ca yàlla tax ak jariñ askan day dugg ca xidma mu ngi mel ne ni société civile di def parti politique yi ñu ngi fi société civile ñu ngi fi ONG yeeg yëpp dañuy liggéey loo xam day am day développé askan xidma dafay xaw a nuru ci côté boobu waaye fi ñu wuutee mooy xidma ki koy def soxlawut fay ak àdduna soxlawut xaalis bu muy capté waaye ngërëmul yàlla ak jariñ askan wi mooy tax moo tax nga gis taalibe yi nga xam ne sëriñ bi moo leen yaral boppam saa bu ñu dajee kenn ku nekk day bëgg a defal xidma rendre service morom ci ci lu dul muy xool sax wàccuwaayam ci biir askan loolu jeexit la boo xam ne moom moo ko fi bàyyi xidma doon lu am solo cim réew réew mu amul xidma euh, avance dana ko jafe bu ngeen gisee euh, société yu moderne yi sax léegi dem nañ ba xam xam ni euh, action citoyenne yi dafa am solo doomu réew mi ñuy coobarewu di defal askan wi dafa am solo moo tax gis nga ci ba ci yenn prisonniers yi sax léeg-léeg travaux forcés lañ leen di def yooyu yëpp dafay dañoo dem ba nit ñi léegi lu waay def ñu fay la da nga cay xaar fayuk àdduna bu dee xidma nag da nga cay bëgg a jariñ saw askan bëgg a jariñ doomu aadama ba noppi ci sàkku ci ngërëmul yàlla daree àdduna taxul moo ëpp efficacité li ñu wax euh, kii société civile bi li muy def nuroo nañ ci côté boobu mais ngërëmul yàlla nag mo gëna not fi ci walu xejma lool nak da cay yar talibi sante len ko bind ko ba nopi def ko de de bu masa am ci ndiaram ge mom ci da na xelit bopam di joxe lolu xitma kon xitma bepp yëngatu bu nit ki def bu doole di def wala xel di ko def muy jariñ askan nga def ko ngir jariñ len waye ngir sakku ci ngërëmul yalla lolu moy xitma muy lu am solo nak mbolam lu taxaw ci yoonu murit xitma moko taxawal mboolem lu taxaw ci yoonu murid ndax tàmpale bi metti woon na lool waaye mboolem lu ca taxaw ak fii ñu egg xidma moo ko taxaw loolu tax mu santaane ko fax du mu moom turan li wajhi llaahi faqat lu ci waaj def yéen ñëpp na ngeen liggéeyal jullit ñëpp ñëpp kilifa yi jullit ñëpp de leen leen liggéeyal bu leen ci am xaj ak seen te lu ngeen ci def na yàlla tax faqat bila bila mannin wala tabah bu len ko def ngir bëgg ku len ci sante bu len ci def bu len ko def ngir bëgg turu aduna kon lolu bu ko talibey yi askan wu nek fofu développement avancement tane ci yomb te lolu moy li ONG yi defal yu mel kon nga gis ne kon mom bi we dafa daal indi rupture li ñu wax rupture fi nit ñi gënon na sagane fofu la gëna taxawé nit ñi tayal lu way def xaar ci fayu àdduna mu ñëw ni leen déedéet àdduna de mu tax leen a jóg suufe na lool war ngeen koo weesu dee leen diir at àllaaxira àdduna na doon aw fas rek bu ngeen di war di jëfandikoo waaye bu mu leen tax a jóg ci lenn ba noppi tamit yar leen ci eh, liggéeyal sa moroomu doomu aadama te yàlla tax moo tax toroxlu bi am ci yoonu murit euh, euh, yéeme su ko defee loolu nag yooyu mu indi nag Don yu am solo am solo bo xamanteni euh man na man na développer am rew suñ ko xamé ba nopi taxaw ci waye nak suñ ko sagane dañu mujj yam ak ñepp efficacité bi amone mu nga moy jaayante bi am kilifa bu euh day mel ay béy ci all bi ci biiri rek xitma buñ ko baye moy kon léegi intérêt personnel mooy daal di taxaw te loolu moom it musiba la euh, euh, tuuti bët taalibe murid wër tuuti bët te loolu bu amee rek mooy waral yi ñu dégg yi yépp di am lépp taaru àdduna ak àdduna gese te loolu bëggu looloo tax nag fu jamono jii ñu toll am na ay défi yu mag a mag yu taxaw ci suñu kanam défi yooyu nag lañ bëgg a tudd yenn yi yenn yi ci bitti la yenn yi ci biir la muy lu mata baye xel ñu jamanu fi ni defi bu nek jamono ji nek ak defi jamono ji nek ak defi ak jafé jafe-jafe bu mag bi ak ñam andalon seeni jafe-jafe bañ fi excès ba mbir mi di doora jog, bobu tuba bi mi ngi fi yor dolem yor ay école yor armée ay soldat ceddo yi ñi ngi fi won di jappalé tuba bi ak yenen buri aduna yi borom xam-xam yi doomu soxna yi ñi ngi fi won mbir mi bees lool ci ñoom mënuñ koo dégg loolu sax moo tasoon daara ji ba mu wootee wooteem boobu moo tax ñu bari dem ndax miinuñ ko woon loolu ay défilé woon ci ñoom groupe bu ndaw ku tedd ki jiite leen ñu tàmbali liggéey tàmbalee ko ca daaree Mbàkke Kajoor mu nekk défi bu mag a mag a mag buñ bu nekk ci àddina ñu def leen ko Touba bi ñu leen sante taalibe murid yi amoon na ay ay 1889 bu ma jumul génne nañ leen Kajoor gépp képp ñu génne la ñépp ñu génne leen tas leen tere leen ñuy ànd ak sëriñ buur yi di leen bundaxatal bundaxatal bu méttee métte fu ne di leen topp mu mel na nekk taaliba murid euh, crime la loolu ku jàng histoire ku nekk xam nga ko euh, mu doon mbir mu méttee métte mais ñoom ñu jàpp fi ñu rek sëriñ bi gënal leen lu nekk ba mbir mi egsi fii mu sëriñ bi tamit xam ko sëriñ bi da leen daal wax ne muñ leen saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam Sahabai, yi ñoy seen bayti l'islam te ñom liñ daj daju leen sax yeen genn wal te muy deug kon l'islam bu taxawé sahaba yi ci njiital yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo taxawal yoonu murid tamit bu taxawé ci njital ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ak ñim andalo ñom ñoko taxawal waye fitna ju mette mett dal na leen fitna ju mett lu na leen leen doon def lu ne waaw di japp ay nit di tëj ñi ñu nangu seen alal yu yu doy waar yoo xam ne xëy na waxtu yu mayewut ñu ko kii am na gaaruwaal yu bari lañ leen doon wax jigéen lu mu jigéen lu mu yaafus yaafus waaw mën a am mën a man a am doomi murid di leen di leen diaboliser di leen euh, stigmatiser yàq seen der di leen kii waaye gis nga ko euh, ñoom ñu jàpp rek te bàyyi ndax on lu waxima moo tax ñu egsi fi ñu egsi léegi nag jamono jii ñu nekk dafa amaat yeneen defi yoo xam ne buute na ak ñoom seen défi yooyu ñoom nag jàmbaar lañ ba seen défi yooyu noonu relevé nañ ñun nag ñu am ay defi yoo xamante ni war nañ koo jàngat xool ko jëm koo xool nuñ koy relevé taxadiyatul xaarijee défi yi nga xamante ni ci biti la nekk nekkul ci biir waaye ci biti la nekk bi ci nekk mooy al awlama wa athaaruha saqaafi wal xuluqiya la mondialisation adduna bi léegi dafay mel ne benn xar ya kaw ne ya benn dëkk boo xamante ne dëkku àll na ni lu fa xew kër yëpp xam ko ñëpp xamandoo ko adduna bi noonu la bindoo mu am nag ay conséquences yu terrible yu doy waar ay jeexit yu doy waar yoo xam ne enlome bi mooy mondialisation bi indi na ko mooy adduna bu gëndaloo bi adduna ubbeeku na ci du tëju loolu laay faral di wax léeg-léeg ubbeeku na ci du tëju moom léegi kay seet noo cay dundee rek moo cay am mu am ay jeexit yoo xamante ni yenn yi mën nañoo wax ne jeexit yu am solo la yu baax waaye am ay jeex tamit yu doy waar jeexit yu doy waar yi ku la gën a néew doole askan wu la gën a néew doole ak réer gën faa tasaaroo gën a ëpp jeexit yu doy waar askan wu gën a néew doole mënut a produire dara njàng doxu fa ak réer tasaaroo ñooñu ñooy gën a subir jeexit yi jeexit yu conséquences yu négatives Euh, ci wàllu économie ci wàllu social ci wàllu diine culture ak lépp kon am réew mun a gën a néew doole ci wàllum koom gën laa ëpp nit ñu jàngul moo lay ëpp ay jeexet yu muy yu muy toggoo looloo tax awlame bi mooy mondialisation bi am euh, ay mbir yoo xam ne moo koy jur bokk na ci muy jur mooy dafay imposer ay concept yu bees ay mafahim yu bees wàllu àdduna bi léegi dañuy indi ay baat yu bees solol ko mbubb fardu ko nit ñi imposer ko nit ñi ku la gën a néew doole nag dutu ci am pexe lu mel ne que xorriyaat yi dëgg la doomu aadama bu nekk yàlla da koo sàkk mu nekk insaan xor koo xam ni kenn kenn moomu ko dafay juddu rek nekk as moom boppam am ay sañ-sañam ak ak i warteefam yooyu yëpp waaye àdduna bi dañoo indi ay xurriyaat maanaam liberté yi solal ko mbubb ni nii lañ koy jàppe mu jeex liberté liberté d'opinion liberté d'expression xurriyatu ra'yi wa xurriyatu ta'bir am nga sañ-sañu wax am nga sañ-sañu xalaat ca wutal luñ la ci daanaka ay àpp na loolu dafay daal di doy waar ci am réew lu mel ne que ay jullit ñoo xamante ni dañoo am lu ñuy tënk nga xam ne liberté bi mi ngi nekk ci biir daairatul islam ci biir euh, li lislaam rëdd ci ngay am liberté mais waroo koo jéggi xududullah waree su koo jéggi ñoom nag euh, maanaam mi ñu ko solal dafay daal di ëpp loolu dafay dafay sori soriwaay boo xam ne yow boo ko nattee ci sa nattuwaayu diine dafay daal di indi ay jafe-jafe ñu indi li ñuy wax ay démocratie démocrate ci wàllu yoreen yoreen aw askan jiite aw askan indi ay bonne gouvernance indi ay nangam ak nangam muy ay mafahim ak i déggin yu bees yoo xamante ni dañ koo imposer àdduna bi ba noppi ñoo wax ñoom lañ ca jublu noonu lañ ko war a jàppe loolu nag mooy jafe-jafe bi jafe-jafe lool boo xamante ni ci suñu réew yu néew doole yi dafay daal di indi ay ay ay kii mooy nekkoon kon xuquuqul insaan dañoo gën a yaatal euh, euh, xuquuqul insaan nit ki am na àq ci jëmmam lu ko ci neex na def loolu dafay daal doy waar képp jullit ndax am na yoo xam ne sañoo ko looloo tax yi euh, ngeen di gis ñaari góor ñuy sëy ñaari jigéen ñuy sëy yooyu yëpp dafay daal di dugg ci biir àq yi nga xam nit ki moo ko am ci jëmmi boppam loolu dafay daal di doy lool booy ñëwee ci fu mel nekk yoonu murid wala ci lislaam bi si faama euh, nga ñëw jigéen sañ-sañ bi ñu ko dox kenn lislaam xaju ko woon benn sañ-sañ waaye dafa mel dañoo cuubaat euh, sañ-sañ bi jox ko beneen déggin jox ko beneen kii jox ko àpp boo xam ne ak xale yi niñ leen aare li ñu wax dañ leen di aar de egg ci foo xamante ni moom it dafay daal di indi ay jafe-jafe ci réew yu néew doole yi nga xam ne moom amuñ ci amuñ ci kii yooyu dafay doon ay mbir yoo xamante ni ba noppi suñu réew dañ koy signé te buñ koy signé waxtaanu ñëw waa réew dañuy dem rek buñ demee foofa ndaje mu mag a mag réew yu new doole yépp daanaka dañuy bañ seen loxo ñu signé am na ay ay accords yoo xam ne réew yu mag yi ay Amérique signé wuñ ko dañoo lànk ca kenn mënul leen dara bu dee réew yu néew dool yi nga xam ne mënuluñ leen seen bopp seenum koom demee wut noonu dese nañ lu baree bare ñoom daanaka pour mën a dem sax dañ koy signé su dul loolu dañ leen xoj yooyu dafay daal doy waar sa njiitu réew daf koy signé te du waxtaan ak waa réewam daal di ñëw di jéem a négocier nu mu lu mu koy amale nag moo xam nu mu koy amale ko defee bu ñu ko signé ñu joxe ndigal ne bu ngeen demee kenn ku ne ci réewam na fexe nu muy amee. gis ngeen ci ci ci ci ki yi amoon référendum yi amone le nouveau droit yoy lim indé won ay wax ay droit yu bes lim indé won ay wax ñun ñepp tamit gis nañ bi fi euh, njiitul amerique li ñëwé won waxtaan wi doon am ak njiitu rew mi ñun ñepp déggon nañ ko tam ko doon wax le Sénégal n'est pas encore prêt Sénégal noppé ko manam mi ngi ci waccay waaw yoy ay mbir la yo xamni suñu rew mo koy signé buñ ko signé tamit dañuy ñëw euh, seet ñu koy amale rek ñoom ñooy seet pexe ñu koy amale loolu nag su fekkee ne yow da am ay nattuwaay yeneen yu wuuteeg nattuwaay yooyu teñ na àdduna bépp léegi nii lañ bëgg ñu doxee da ngay daal am ay jafe-jafe loolu sax muy benn kon concept yu bees ay déggin yu bees ay baat yu bees yoo xam ne ñoo koy jox maanaa ba noppi bëgg ñëpp ànd ci beneen bi ci des mooy wàllu matérialisme mooy euh, nazal maddiya yi hmm. daal nit ñi daanaka soreewuñu ak ak i mala maanaam consommation société de consommation mu tamit istihlaaki nga xam ne moom nañ fexe ba di consommer lu bees lu nekk kër yu rafet ak téléphone yu rafet ak oto yu rafet ak nangam yu rafet consommation daal consommation loolu nag foofu te consommation bi mooy ñey produit bi ñi nga xam ne ñooy liggéey mbir mi ñoo ñu koy jaayaat ñun ñu néew doole mënuñoo liggéey ba noppi par force dañ koy jël yooyu dafay indi ay jafe dañuy ëppal ba mujj dafay muur wàllu jaanib xuluq yi ci wàllu jikko yi nga xam ne léegi ñoom njëkkalante bi ci wàllu dajaleem koom dafay egg foofu xam ne duutuñ ci xool daanaka ay jikko yu ay jikko waaw noo mën a amee baax na ku néew doole nga jaar ci kawam jàll écrasé ko nangam nangam dëgg la danañ teg ay loi yoo xam ne dañuy jéem a tënk nit ñi mais loi yooyu daanaka ñu néew doole yi ñoo koy ñoo koy ñoo yooyu dafay daal di indi ay ay kii mooy li alxuraan di wax mataaul xayaati dunya dëgg la alxuraan terewut àdduna li fi dagal ñu bànneexu ci waaye nag bu muur li ñu taxoon a jóg bu mu ko muur ñun àdduna taxuñoo jóg àdduna jaaruwaay leeral ab pont la rek dañ ca war a jàll dem dem ci xayaatu daaima muy dund ak alaaxira ba nga xam ne buñ jaxasee ba dem dootu jeexate su ko defee nag ku yeex rek tuuti bët àdduna dana la téye nga defee na dara la fekk du dara bala la taxoon a jóg fa nga jëmoon doo fi egg su ko defee nasaan maddiya boobu nag moom it dafay daal di indi ay jafe-jafe euh, Serigne Touba radiyallahu anhu dafay dafay euh, wax ni bëgg àdduna daal bëgg euh, bëgg àdduna mooy diggante asamaan ak suuf nga di fi bëgg loo xam ne bëgg gi ñu koy bëgg yàlla taxul lépp looy bëgg te yàlla taxul ci àdduna xamal ne yow ko bëgg àdduna Dunia ma bayna ma bayna samai wa wal ardh fa kullu shay'in tuhibbuhu fiha wa lam tuhibbuhu ta'ala fa anta tuhibbu ad-dunya kon bëgg aduna bari na gaaw na yomb la ah, waaw lepp loy bëgg ci aduna ci wuto ko wut ngir aduna carrément nga xam dafa am place ci sa xol bi jappal ne kon yow ko bëgg aduna non la ko jappé dara wurtu am place ci xolam leneen lu muy am ci àdduna na doon lu koy yombalal aw nekkinam ci àdduna rek waaye bu mu doon luy am bar ci xol loolu euh, dafay laaj nag équilibre am mooy tawaasu ni ko alquran digle wabtaxi fi ma aataaka allahu daaral axira wala tansa nasibaka min addunia équilibre dafay baax waxuñ nga mel ne doo doomu aadama mel ni malaaka waxuñ loolu waaye nag xéewal yu dagane dee ci xéewlu waaye nag bu bu mu la fàttaloo li la tax a jóg nañ fàttaliku toujours nit ñi ngi ci tukki àllaaxira lañ jëm àdduna lu ñu fiy wut na nekk yóbbal ca jël ci lu jaadu rek xam nga ko wut bagage yu bari day mujj diis dootoo doo xam foo koy foo koy dootoo ko àttal moo tax àdduna boo yeexee mu gëlëm loolu ci anam boobu moom nag loolu la kon li mu bëgg daal mooy euh, tawasut am mooy digg doomu am kon buñ ko xoolee. ci walu awlama bi moy la mondialisation ñaar yoy bokku na ci gëna fess ci ay da fay indi deggene yu bes, xalaati yu bes, doxale yu bes. ba nopi walu dund bi tamit lepp matériel lay mujj nyom, amut leneen ñom ñom ñi du jullit mom ñanga ca lañ wara nek ndax japp nañ àdduna lépp àdduna la la kon mom sen investissement bu ñuy def lu nek ci aduna la yam bu ñun nak aduna amna na amna moy na ca feneen fa moo ëpp mujj moo gën a sax bànneex ba moo gën a ko gën a mat kon ku tuuti bët rek àdduna dañ la téye ñun duñ bokk kon ay nattuwaay loolu nag moo tax sëriñ bi moom doon wax ni àdduna daal moom li mu fi mooy li koy jariñ ci yoon tukki bi muy tukki axatu min dunyaahu zaadi lil janaan wan qaada lil hawa wali safal janaan kon awlawma bi jëfi la boo xam ne war nañ ko rek war nañ cee seet ni ñuy nekkee ci àdduna bi ndax léegi àdduna bi léegi dafa gëndaloo ay kilifteef yu mag dafa am ay ay mbooloo yu mag a mag ca kaw mbooloo yoo xam ni ci dëkkandoo yi la ak ci biir réew mi tamit yooyu yëpp dafay nekk ay kutumbal yoo xam dafay complexe dund bi dafay daal di dafay daal di doy waar ñaareel bi mooy euh, ak technologie al jadida leen les nouvelles technologies mooy jumtukaay yu xereñ yu bees yi am ci àdduna bi léegi muy internet bi muy réseaux sociaux yi dafay bouleverser suñu dundin daf koy wëlbati benn ci anam boo xamante ni dafay yéeme bu ñu yeexee loru ci li ñu gën a def loru ci li gën a def loolu mooy lan mooy ni léegi dafay mel na distance amatul diggante bu bu bu soree dafay mel ne amatul dafay gàttal diggante yépp léegi fii ñu nekk ci salle bi ak ki nekk États-Unis ñoo bokk même jamono fu nekk nii ndax jumtukaay yi moo ko yombal. ngay wax ak moom di jokkoo moom di jënd nekk fii mën a jënd lu nekk Amérique ci sa portable doom nga jënd ko ci di def ay virement di def nangam di seetaan ay film di seetaan ay xew-xew am nga léeg-léeg sax nga njëkk koo yëkk nekk Amérique foofu yooyu dafay daal di euh, kum fekkutoon sa waajtaay mat dafay indi ay jafe-jafe ci nga ànd ak àdduna bi muy nag lu am solo waaye nag dafay dafay fekk sa waajtaay mat buñ fàtte ni waxoon naa ci ginnaaw bi réew mu a ëpp réer gën laa néew doole ci wàllu koom moom consommé la nekkee jëfandikoo du ci du ci am benn kii euh, su ko defee loolu euh, dafay daal dafay daldi indi ay jafe-jafe ndax dafay mel ne euh, yoonu murit bu boobaa yar bi dafay daal di gën a jafe xam nga bu njëkk yarkat bi day foog ki muy yar rek ànd ak moom ci barab beru fa mu jeex mu mel ne da koy coupé ci àdduna bu ngeen seetloo sëriñ bu mag bi dëkk yi ñu doon sos yépp looloo koy waral euh, bu bu nekkee ci barab ba xumbeen ba jaxasoo bi nar a sooxeloo liggéey bi dafay génn dem taxawalaat beneen barab beru fa ñoom liggéeyaat bu naree ba dem ba nar a sooxewaat ndax jaxasoo bi mu tuxuwaat feneen loolu moo sos dëkk bi ñu nekk doon dëkk bu njëkk bu njëkk yilif ci àdduna bi fi li bi li demee ba affaire bi màgg jaxasoo yi tàmbalee bari mu jóge fi dem Touba. touba tamit bi fa demee dem juróom ñaaraat mu mag nit ñi bari fu ne nit ñi dafa joggé ci ci biir réew mi di ñëw jaxaso bi commencé am yar bi commencé so sooxe mu joggé fi dem bakki bari fa la ko mbir ma fekk euh, touba bi jël ci nga gis ne kon bu njëkk dëkk dëkkaan yooyu mu da di digal magi taalibe yi ñu koy sanc daf da yombal yar bi ndax nit ki bo bérok mom ci barab rek coupé nga ko ci aduna bi légui li ngay def lay gis li ngay wax lay dégg du lénen du dudd léegi nag fu mu ne loolu dafay jeex dafay jeex takk fu mu ne nit ki mën ngaa am sa doom bu génn kër gi benn yoon nga jàpp ne mi ngi ci li mu war a def fekk nekku ci ngi ci kër gi ci yaramam waaye ci xelam ak xalaatam ak waxtaanam man nga ko nekk France ma nga ko nekk États-Unis mi nga ko nekk fu ne ci àdduna mënutoo ko contrôler kenn munu ci dara fu mu nekk nii danga nga naan ko aywa euh, xale day teel a tëdd dem leen tëri mu tëj buntam tëdd nga ne xale ba tëdd na nga dem tëdd mu nekk ci portable nekk ci whatsapp yi réseaux sociaux yi du nelaw guddi nekk ci yeneen yoo xam ne xamoo ko da ngay jékki gis ay melokaan ci jikkoom mu jaaxal la lool fekk àndandoo bi la téléphone bi la moo tax dafa yar bi léegi dafay daal di complexe dafay daal di doy waar euh, su ko defee loolu nag dafay indi jafe-jafe ci sunu yoonu murid bi ndax lu tax mooy dafay mujj léegi Euh, kafa aadi mooy man-man yi dafay tasaaroo ca organiser wuñ leen am na ñuy góor góorgóorlu di def seeni site internet ay site internet murid yu bari am na télévision murid am na mais fi mbir mi nekk mooy mooy kilifteef gu mag gi amu ci bosom amut bosom ay nit rek ñooy taxawal seen yëfi bopp di doxee nañ ko nañ ko gisee rek ñoom waaye kilifteef bu mag gi amu ko ca man li ma jàpp mooy kilifteef gu mag gi waroon naa am site internet bu officiel nga xam ne xibaar bu ca jàll ñu jàpp ne mooy xibaar bu officiel ci yoonu murid lu mu wax loola la looy gëstu gëstu ko foofa communiqué bu muy def mu def ko wàcce ko foofa mu am télévision officielle boo xam ne tamit déclaration bu ñu dem ñu defee ko foofa waaye doo woo ay nit ñu moom seeni télévision ñu ñëw jël ko interprété ko neneen waaye kon gis na ko am na ay taalibe murid yu bari yu am ay site internet yi am télévision yi am ay rajo yi am ay journaux waaye kilifteef bu mag bi moo amul bés loolu nag dafay indi jafe-jafe ci ne kenn ku nekk lam taxawal ak ñam jël nu mu ko gisee rek noona lay liggéeyee su ko defee xitaabul murid yi dafay daal di indi jafe-jafe duñ am benn xitaab mu waxaat benn kàddu bu tënk bu nos duñ ko am dafay daal indi jafe-jafe mooy compétence yi day tasaaroo te kenn nosu leen muy benn say moo tax bokk na ci li gën a jàmp fu nekk na en tout cas ñu war a def mooy kilifteef bu mag yi am site boppam am télévision boppam am rajo boppam am journaux boppam nga xam ne lu ca jàll c'est officiel kenn du wax ni sëñ bee ko wax ak waxu ko moo ko jubloog jubluwoo ko te dañ ko koo wax loog dañ ko koo def lii yooyu yëpp fu ne yii ñuy wax yëpp ñàkk nosul rek kese du leneen bu ñu demee ba bu ñu defee communiqué ñu naan est-ce moo ko wax dañ ko koo wax loog loolu mooy problème am loolu lépp mooy waajtaay wu matu waajtaay wi nag kon war nañ cee gën a gën a tax euh, su ko defee technologie boobu dafay daal di bouleverser euh, yenn xiyam yi nga xamante ni mooy nattuwaay valeur yi nga xamante ni euh, sufiyanke yi dañ ko amoon lu mel ni que xons la beru samt noppi joor xiif bu digg doomu veillé guddi gi ci jaamu yàlla yooyu yépp da ko benn leen 11 la ber munu tuta am to ber ken munu tuta am samtu boobu mu don wax nopp samtu wa juum noppi boobu jamono communication lañ nek fu nek ni bo waxu ñu waxal la nga top nga toppi dang-dangi di wedd rek parce que jamono communication ci lañ tollu kon noppi amutu motax ngay gis goné yoon mourid yépp kenn ku ne way tollu ngeer bu ne kenn ku nay wax kenn wax lo wut kenn kenn ku nay wax rek su ko defé mu indi jafé jafé mooy noppi bi nekkon bokkoon ci xiyam yi ñu ngi commencé faatu ber moom amatul leen jox bi ñuy wax euh, léegi société de consommation ci lañ toll mooy ni léegi ñu am doole ñooy ñooy liggéey seeni mbir ba noppi forcé ñu ñu jëfandikoo ko waxuma ñu weñ suñ loxo mais ci wàllu ci wàllu marketing ci la ñuy jaar ndax ñoom seenu xam-xam ak xere xereñ di def ay publicité di ci def alal ju bari ba fu nekk ne nga gis suñuy xale yoo xamante ne amuñ sax liggéey bu taxaw waaye bés bu set da leen di gis téléphone marque bu gis marque bu génn ñu def ko mooy seen yitte balaa yàgg ñu am ko boo ko xoolee amul liggéey sax bu taxaw waaw boo nekk ci looy liggéey mun la maa ngi ci barke sëñ bi wala maa ngi ci noonu maanaam kon ñun dañuy consommer rek di consommer di dem yoo xamante ni yow euh, téléphone yi ngay topp di dang-dang wala marque oto yi ngay topp wala kër yi wala nangam yi yëpp du euh, sa nécessité euh, nécessité nekkatu nécessité ci yow waaw ba noppi xëy na jokkoowut ak sab liggéey doonut lu yéwénal sab liggéey mais luxe rek la hmm. mooy li ñuy wax dóoru daal yor ay téléphone yoo xam ne yu doy waar di sol ay yére yoo xam ne kii nangam yooyu yëpp mooy ci xalfiya saqaafiya taxalluf saqaafiya moo koy waral mooy day mel ni day am lu ko manqué mu bëgg koo mottali ci li ñuy gis li bët di tege loolu kese la waaye ña ko mën dëgg-dëgg daanaka toppatuñ marqué yi sax téléphone bu yamaay la ñu yor boo xam ne da leen fajal mën a fajal seen aaju ñu continuer seen yoon mais koo gis muy def yu mel nii daanaka taxaluf saqaaf yi la maanaam moom dafay am yëg-yëg bu bu yëg ci wàllu manquité mu bëgg koo mu bëgg koo dabaate moo tax suñ xale yépp nii ngi leen di gis ci téléphone yi la ñuy topp marque nangam ss nangam dina ci wax ay wax yoo xam ne yow sax doo ko xam ay marque yoo xam ne mu jaral leen lu na nag ci àdduna yooyu nag dafay daal di ay jafe-jafe mooy nekkoon kon euh, dafay daal benn ko sufiyanke yi lañ daa dundee lépp affaire bi da ko benn beru amatul noppi amatul jamonoy communication bi ku waxul ñu waxal la sosal la nga topp ci léegi yow dootoo defati lu du toppi weer bu ngeen ko seetloo yoonu ci at yu weer yu weesoo ak at yi jamono bu nekk ñu waxal leen ñuy ñuy ñuy manifesté wu di coow di nangam di weddi liggéey bépp léegi mooy weddi bu ñu amoon seen yëfi bopp nag euh, de foofu la ñuy dugal mbir yëpp ku bëgg am lu leer dugg foofu mu jeex. mboolem euh, kuréel yu mag yi ci àdduna bi yépp loolu loolu lañ am yooyu lañ am mais ñun loolu mu ne moo ñu moo ñu xaw a des beneen bi ci des ci jóge ci mooy ne sunu mbokki jullit moo xam ay euh, kuréelu sufiyanke la wala kuré kuréelu islam jamaayaat islamiye war nañoo jéem a am ak ñoom euh, taxawaay boo xamante ne dafay digg doomu ba noppi am équilibre rafetante njort ci sunub ànd warmaalante ci sunub ànd ca kenn ku nekk say say mabaadi nga jàpp ci liñ déggoo dëppoo ci ñu dimbalante ci fi ñu wuute ñu maslaa ci suñu ko deful danañ ñu fénqale ak mbokki suufiyanke yi te loolu ci weer yi weesu seetlu ngeen ay xale yu murid yeeg xale yeneen ci yeneen yoon di génne ci youtube beeg ci réseaux sociaux yi kenn ku nay wax kenn ku ne tuumaal morom bi ci loo xam ne du jur benn njariñ du jur benn njariñ loolu sét nañ ko nit ñi ñëpp sét nañ dañ ko def ci diggante sufiyanke yi fénqale leen ci biir réew mi ak biti réew fénqale leen ak association islamique yi ba mu jëlé jullit ñi ci boppam dañ nan siwa mëna tok a jotay wa wuté mom ba aduna di tukki dana am ba ci ñun mouride ci biir sun biir ñu rek dañuy wuté da ngay dégg ñu nan ki ab ustaas la daanu kat la ki nangam nangam la ki nangam lu tax loolu kon moo ne wuute il faut mu am waye wuté dañ koy gérer dañ koy gérer buñ ko geere wut mooy indi moo indi yeneen yi waaw nit buñ ko waajal moo tax mu nangu moo tax mu ragal wuute du ko xam te da koy ragal ndax lam miin la jàpp ne ci leen ñëpp war a nekk ci àdduna bu ñëpp nekkoon ci menn mbir du dox wuute wu nekk yi wuute yi xalaat yi wuute yi wax yi mooy dundal àdduna waaye nag dafay laaj taxaw su dul loolu rek musiba naaru laay lay daal di jur kon sunu mbokk jullit yi faaw ñu xool. naka la ñuy jëflanteeg ñoom waa sufiyanke yi ak waa ñi nga xam ne gëmul ngirum sufiyanke waaye am na lu ñu booleeg ñoom ñu iqaama alaqa mutawazina wa muta wa wa mu'tadil hmm. boo xam dañ ko tabax ci ci wàllu warmaalante kenn ku ne warmaal sa moroom ca bañ a jéem a eq saa keneen jafe-jafe bi nag mooy nga ne man maay am ka ca des du am loolu moom dafay indi jafe-jafe ca dëgg-dëgg loolu day ci indi jafe-jafe man maay am ca ki ca des wërta am kooku moom dafay indi jafe-jafe loolu tamit war nañ ko kon ñu boo gisee ci bitti daal yu bokk ci bitti mën nañ cee jàpp environnement bi mooy mondialisation bi mu jur euh, concept yi ñuy wax ak ay naissance matérielle bi mel noonu mën nañ cee jël tamit nouvelle technologie bi ni benn bagage yi léegi nattuwaay yi ak tamit relation yi ñu am ak suñu mbokk jullit ñi ak ñeneen sax ñu dul jullit ndax ñoo bokk doog nekk doog ay doomu aadama bokk réew mi wala bokk àdduna bi te kenn mënu koo jël bàyyi sa morom kon il faut que ñu maslaa ci liñ bokk ci nite gi ak ci pas-pas yi ñu di ci maslaa fi ñu wuute ñu euh, liñ dëpp ñu ci dimbalante fi ñu wuute ñu ciy maslaa lu aju nag ci ci taxaddiyaat daaxile mooy jafe-jafe yi nekk ci biir moom nga xam ne judduwaale wuñ ko mais daf ñoo dab yooyu. Euh, bi ci njëkk ci gën cee garaaw mooy sobantal njàng bi kooku moom war nañ koo lijjanti suñu ko lijjantiwul dara du lijjanti àdduna mënuñoo wax a wax ba ñàkkal fayda xam-xam ba noppi ni suñu dund dana jag mënut a nekk kooku moom ku la ko wax dalay nax moo tax sëriñ bu mag bi joxoon yitte xam-xam dundam gépp mu def ko ci xam-xam ba ñuy jàng taarix siiraan ci 48 heures yu mujj yi ci dundam jàngale na ko waaw mooy ba xutbatu concession bi suñu Lamin di nettali ci 48 heures yu mujj yi la ko jàngale te booba juróom-ñaar fukki atam naa nga wala juróom-benn fukki at yi tegal musta dañ di jàngale ba noppi sasoo taalif bi mu demee ba ba ba njàng mi ëpp ko doole dafa jël ay nit kenn ku ne kii mu ko jàngal loo alxuraan kii xam-xam bi kii tarbiya bi kii nàngam bi eh, def ko organiser ko ba noppi di taalif di taalif yooyu mooy bu ñu ci kenn nax xam-xam mënuñ koo ginnaawal ba noppi di dem mënut a nekk mënut a nekk ku la ko wax tamit njariñoo boppam lay jéem a jéem a dabu walla complexe am ak ak manquiteem lay jéema a muur waaye àdduna ci xam-xam lay dox loolu moom alxuraan jox nañu ci misaal baat bi njëkk a wàcc ci alxuraan mooy iqra waaw ba noppi daal xas bu ma faxoon bii waxut lan ngay jàng iqra rek la wax mooy kon jàngal lépp waaye nag bismi rabbika loo mën di jàng ci àdduna na sa borom nekk ci sa kanam loolu mooy loolu mooy jullit kon su ko defee wàllu xam-xam bi moom mënuñ koo mënuñ koo ñàkkal fayda desal ginnaaw ba noppi di dox loolu moo mënta nekk lu ne nag la ci sëriñ bi wax kooku jërut sax ñu ciy taxawaat ñun ñépp a ko xam ñun ñépp a ko xam xam-xam moo gën jëfe ju àndut ak xam ku ku ku bëgg texe àdduna ak alaxira na na na xam lu ci nangoo sonn ak yeneen ak yeneen ku leen di tere xam-xam mooy seytaane moo teewal seytaane ci kaw suuf lu na la wax su ko defee loolu moom duñ ci sax taxaw ndax ñun xam ñun ñëpp ko xamandoo euh, ñun ñëpp ko miin su ko defee kon buñ bëggee régler loolu moom mooy faaw xam-xam bi ñu lijjanti ko xam-xam bi tamit li ma waxoon ci wàllu technologie bi rek moo ci amaan mooy ne yoon wi ci boppam. xiyaada la amul amul yëfi boppam ay nit ñooy góorgóorlu di taxawal seen i daara seen i nàngam mais xiyaada la bi amul du bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi siyaara ñëpp di leen sant bu baax di leen gërëm cant gi nag uh, ñu ngi ci jiital comité d'organisation bi nga xamante ne bi ñëw taxawee nii ak académie Daaru di ànd ak ñoom ci liggéey bi di ci teg euh, Serigne Cheikh ci waxtaan wi nga xamante ne bii def na ko fii tey waxtaan woo xamante ne bii yaakaar naa ne liñ ci séntu woon gis nañ ci lu ko ndax li Serigne Cheikh wax rek nga xamante ne bii lépp moo jar a jaar na ci la koy saafara itam wax na ko xam naa. damay laal ñaari point ci yoo xamante ni bi wax na ko ci muy am solo muy li ñu wooyee ni technologie li mu indi maanaam xam-xam yu xarala yu bees yi lim jur wax na ci lu am solo ñu bàyyi ko xel bu baax ak maanaam liberté yi nga xamante ni bi amul limite loolu moom yaakaar naa ne ñun ñëpp seere nañ ne lu ñu naqari rek moom moo ñu ko teg te dafa wax lu am solo loo xamante ni bii lenn lu nekk lenn nit bu ñuy day am ñoo xam ñoom ñooy nekk victime yi victime bi mooy la ko koy teg mooy ñàkk xam ak ñàkk am léeg ñàkk xam dana ko dugal ci yoo loo xamante ni bii maanaam bu xamul du ko def kon kooku laaj na ñu xamal ko bu baax léeg itam dana xam waaye ñàkk a man lu demee li suñu baax doon wax si maam santal modèle bi mu doonoon ci sukkandiku ci sa bopp ak demal sa bopp ak lu ne nga mën a ko sa bopp loolu dana tax nit doxee doxee am am mbir daal ko dareen boo xamante ni su mënoon du ko def kon loolu xam naa ne war nañ ko bàyyi xel bu baax ndax xam ngeen ne ñun ngi nii kenn ku nekk ca sa kër ngay tàmbalee am nga ca loo xamante ne bi loolu naqari loolu la te la la ko teg mooy technologie ak jadida moo la ko teg ñëpp xam nañ ko kenn mënu fa jubbanti sa kër ci nen li mu wax rek loolu moo wér danga naan dem li ngeen tëri tëj fay say làmp tëj sa kër waaye kenn tamit ñu ngi jokkoo ak àddina bi yépp loolu kenn ku nekk mën nga koo xool ci sa kër diiru ngeen fenn kon day mel ne am na baat bu ma waxoon ci ginnaaw muy fexee saxal kër bu mag boo xamante ne bii maanaam li ñuy mu murid yi moo koy moom loolu kenn ku nekk daf ko war a ci sa bopp ku ne xam ne ne dama naan ñun kenn ku nekk la nga mën dañ naan defoo ko ci man mii lay tàmbalee man sama baay li mu paase ci jàngale jeexati dënam gépp mën naa ko loolu mais defuma ko parce que daa am lu ma jël lu ma gënal loolee maa ngi koy nettali barki dem damaa demoon Fuuta war a sori seeti woon Ceerno Sama Sall waaye damaa rus bi ma demee yaraanga ji mi ngi tàmbali bi ma jaaree Ndar ci daa sëñ sëñ sëñ Mor Diop ca la tàmbalee jéexul ba ma dem war a sori gis Ceerno Sama Sall damaa rus ndax lan dama teg sama bët hmm. dafa am loo xam ne ni bu ñëwee daa am lu muy dal te suñu seex juñu na ko doon tuddul aaya bi hmm. maanaam wa ma arsalna fi xaryatin min nadirin illa xal mutanfuha hmm. inna foo fekk lu nekk ña ko yàq mooy borom doole ndax lan système bu ñëw dañuy taxaw ne du fi amee ndax day bëri lu yàqal ñaar buñ taxaw ni du fi am itam lañ ma dañ ko def loolu ci ma ci lay commencé bi suñ kër xoola boo demee Ceerno Saam sax sama ma xarit moo ma ko yàgg wax ma yaakaar ne moroom sama bàyyi laa ko tegoon ba ma demee fekk muy moroom sama mag Sëriñ Mbàkke hmm. cinq heures ma dem ni ko xaar lu rasoo gi maatam ci këram ba ba ba ba dix heures ci guddi mu yoral ak si jóge ca tool yi ànd ak pili de daanaka cent personnes day donga yéen da ca tool yi bañ ñëwee fekk naa fi plus de cent alluwa yu bind loxo li may nekk li amagul maanaam fukki fan amagul fukki fan laa wax xale yi bañ ñëw dañuy continuer di jàng ba minuit moyen ceerno saama sa neuf subu moo zoom séddale rey plus de cent bool mu di ko séddale ci loxoom ñu leen ba pare minuit yu topp lañ gisee ak moom waxtaan ak moom jógi fi ña koy xaar ña koy xaar bu war a continuer liggéeyam loolu lañ xamoon démb dafa am lu wax lu am solo lu mu wax muy lenn lu nekk li Imaam Maalik waxoon la ko sosoon moo koy mën a dundalaat yoon wii dara mënu ko saxalaan lu may démb jëfi nekk ñu indiwaat ko loolu mën sama baay moom laa xamoon fii ci Daaru Salaam moom laa xamoon moo daan jàngale ànd ak dong yi dem ci tool ya nekk ci suñ kanam ñuy bay bu ñu agsee ci moom mu jàll bu ñu wàccee mu bind àlliwe ñu jàng ngoon yenn ba ngoon bu ñëwee ñu continuer buñ reer pare moo ko séddale boppam loolu lañ xamul démb ñun ñi nii ku ci yor donga la ñuy reere la ñuy indi ba maanaam doy na wala doy sañoon néew ci jëlee ñun ñëpp dañ ko weesale suñu bopp taluñ man la bi dafa sori sax ñu di ko ci kaw nañ ko tàmbalee ci ñun kenn ci defut la nga mën ngir lan waraal màdd wax na ko fii màdd moo ñu lépp léegi yi moom lañuy ñuy dund léegi kenn ku nekk yaa ngi siiw nooy amee appareil bu seer pro yu génn topp es yi topp topp topp air yi bu génn ngeen danaa ko am topp oto yi bu génn ngeen dana ko am kër yi maanaam saa yu nekk plan bu bees di génn te loolu ñun ñii ñëw ci jiitu ceerno saama sa lee mu def ay junni junniy taalibi Cheikh Khadim mën nañ ko naa nag waa këram nii takket nu def ko ci loolu moo wér Sëriñ Tuubaa wàccew na ak ñun ñun ñoo ci des lépp mu ngi fi xam-xam bi mi ngi fi mbooloo mi ngi fi alal ji mi ngi fi mais nag volonté bi vraiment moo amut mbooleem ñii kenn ku nekk kenn ku nekk ñii wax fii amu ci kenn koo xamante ni bii bàyyi nga fi bii fi jógee loo xamante ni bii maanaam mat na maanaam ñaar ko junni du kenn nag ci sëñ bi moom mii ñu nekk ci këram la ñu tàmbalee bàyyiwu fi dara. dundam gépp ci nit ñi la ko def ñun nag suñu dund gépp lar lañ lépp ci suñu jëmm lañ ko def defuñ ci kenn dara muy ci xam-xam muy ci dundal muy ci muy ci lenn amul sëriñ Mourou Mamoune ñu di mëneel bu ñu xam alalam man nañ ne ñépp a ko moomoon saxaar yi fii la daan ñëw lu moom ci gaal ci ca àll lañ ko daan tax ku ko fekk jël ko indi parce que xam ne ni ñépp a ci yam loolu lañ xamoon démb loolu lañ xamoon kon bu fekkente ni bii bëgg nañ bëgg nañ lii ñuy jàmbat faju sëñ Muntaxa wax na ko saa yu nekk njàmbat li bari na coow li bari na waaye du dara wàcc yoon yi dong la te suñu borom daf ko wax zahara fasaadu fil barri wal bahri njàmbat li bari na fil barri bari na lool wal bahri bari na lool lan moo ko lu ko waral bi maa kasabat aydi naas lépp nit ñi ñoo ko def sëñ bi wax na ko barki dem loolu dama doon xool booy xool fi mu ne nii ñaata accident la ñuy am kenn xamul nu mu toll baa ngi nii saa yu xiinee naax saay bërki démb làkk gi nga xam ne moo am yuunaan yi ñëpp seetaan ngeen ko ñaata ñoo ci dee ñaata oto ñaata alal ñoo ci yàqu ñii xaru suba ngoon ñi ñuy rey lii lépp ci jéeri ji la am mais ñëwal ci géej gi nga xool noonu la mel fayabaanaat yi ñoom lu ñu wax dañ ne pôle yi li ciy xew ndax àddina dafa nar a tukki lu ko waral daa am gaz yi xamoon yu fi nekkoon dañuy wax ne deux cent cinquante milliards tonnes actuellement fi mu ne ma am seen ci te su paree xam nañ ne wóor nañu ne bu wér bu bu mën na wan nu àddina ba mu jeex lan moo ko waral. suñ loxo yii moo ko teg wàcc yoon bi rek moo ñu ko teg du leneen géej gi dañ ne yow mi yenn cent vingt personnes danañ ci dee yow mi yenn yow mi yenn lan moo ko waral wàcc yoon bi rek moo ko waral xam naa ne kon dañuy sant ñëpp di leen gërëm di xam leen daal maanaam lii euh, sëñ Cheikh doon wax nga xam ne ci tënk maanaam mooy yoonu murit ak manam yi nga xamne mo ne ci kanamam yo xamne tane bi manam ay défilé ci kanamam yo xamne ci bitil ak yu ci bir man de xamna ni ci bir lu mom ñun ñoo ci jitu te yi ci bir bu faju won ya ci biti bu ñuy dam fu mu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ok la nga xamna ne kàddu yi xamna ne lo xamna benn eh, si woon tegaat dara rawatina sëñ Cheikh Mbacke tam nga xam ne joxoon nañ ko tam traité ko traité ko rafet macha allah mu nekk koo xam ne yàlla dogal na jaar nañ ci ay loxo ñu doog a ñibbi si dëgg morom yoroon nañ nii ñu la ko yàgg xame mooy amul fasaxatu lisan ba pare euh, saa boo ko dégloo mu wax ko ba pare li li li nga xam ne moom la doon wax dana leer ci yow leer boo xam ne dèjà mu nga leen loo am lënt ni kon ñu ngi lay sant bu baax dina gërëm ñu ñaanal suñu borom bu def fi te yokk xam-xam bu baax a baax di rafetlu tam commentaire yi fi mbokk yi def sëñ Balla Gaye ak sëñ Sam eh, nag fi sëñ Sam daanee la rek laay laay laay laay laay laay laay jël muy eh, dafa am loo xam ne fan yi rek am na ku ma ci ko nit ki fexe ba taxaw sa jëmmi bopp fexe ba day war ci bopp nga def ko loolu dafa yomb lool parce que waaye jégul sax waaye bàyyi mooy sax bu xëyee dana fexe ba li war ci boppam mu def ko dina fexe ba lekk dina fexe fexe ba njabootam lekk dina fexe ba bu tëdd jotee mu xool fu mu dugg fu fu fu muy fanaan mu dugg fa kon loolu taxul ñuy wax njàmbaar njàmbaar mooy li nga xam ne nit ki da ci da ciy participer mu doon loo xam ne luy jariñ doomu aadama yëpp la luy jariñ adduna bi su que xoolee képp koo dégg ñu koy tudd ci ci ci taarix te tam moo xam ci taarixul islam wala ci taarix bu mën a doon rek da tax ñu koy tudd lu ñoom def ci boppam rek waaye lu mu def lu ñu ñëpp di jariñoo yaakaar naa lu ñuy wax ak njàmbaar loolu moo tax ñuy wax baax a baax rawatina ñi nga xam ne li nga xamante ne ni Serigne Touba tabax na ko àndoon ko suñuy maam te bokk na ci maam Cheikh Anta mi ñuy wax ñu doon waxtaanee ci fan yii yëpp day dégg mbal bisam bi su ma doon daal soit ñu fexe ba saytu ko bu baax a baax buñ ko saytoo ba noppi ñu fexe ba dolli ji loo xamante ne nii bu ëllëgee ñu ñëw suñu ginnaaw rek mën a wax ne lii kat suñu maam suñu waajur ñoo ñoo ñoo ñoo ko fa taxawaloo yaakaar naa loolu war nañ ci gën a macha allah waxtaan waxtaan bi am na solo commentaire yi fi def it na solo lool daanaka li ñu ci doon wax rek kàddu yu lay doon. Hmm. yoo xam ne sëñ Xaadim Salim sax moom moo a nekk ci kanam ñuy sant bu baax mbokk yi fi teew yëpp nekk ñëpp hmm. nekk kon cant boobu ñu taxawaay bu rafet bi rawatina eh, taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ren ci màggal bi ñuy jàpp gi ñu jàpp ci organisation bu parce que yàlla dogal na at yi weesu yëpp ñu ñu nekkoon ñu ci góorgóorlu amoon ci yéen loolu waaye xëy na xawoon naa gis ñu yàlla dogal ren ji mboolem mbokk yi rawatina association bi lëkkale eh, ñu daal soxla ñëw jàpp ci rawatina ci. waaw ci al ci al jaal bu saqaafi bi hmm. jàpp nañ ci taxaw bi taxawaay boo xam ne dana nii hmm. yaakaar naa mënu woon ñàkk hmm. kon ñu leen di sant ci turu sëriñ bi leen gërëm xam ne euh, daal solo bi ñun ñëpp bokk comme ni ñu koy faral di waxee rek euh, euh, bokk maam Cheikh Anta li li li tax bokk ci moom li ci ëpp solo pas-pas la yaakaar naa képp koo xam ne ni yaa ngi ci dëkk bi nga yeewoo wala nga yeewoo faneen sax te te te bëgg lu baax rek mën nañoo wax ci njabootam lu bokk kon ñu ngi rafetlu taxawaay bi leen sant bu baax leen gërëm te am nañ yaakaar ne yoon bi buñ ci continuer eh, dinañ dem ba àgg foo xam ne eh, liñ bëgg ci eh, jàngale maam si am te liñ bëgg ci wane ko danañ ci àgg foo xamante ne ñu kawe suñu jot lay doon kon ñu ngi rafetlu taxawaay bi. di leen sant di leen gërëm wax dëgg yàlla taxawaay bu rafet na depuis bi ñu bi ñu jàppee màggal nga tàmbali waajtaay ba léegi ñun xëy na jamono yëpp dégg ñu fi woon ndax dina nekkoon Dakar féete ci liggéey bi nekk foofu waaye lépp lu fi waroon rek bu ñu ñëwee fekk kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom gën ñoo gën leen a dëgëral te dàq seetaan bi suñu diggante rek ndax seetaan moom saa bu ay nit àndee jóg taxawal lu baax rek ca lay ca lay jóg laxasaay kon nag nañ fexe ba dàq ko suñu diggante te ni ñu koy defee mooy rafet njort te xam ne ñëpp ñu boole mooy bëgg a defar waaw mbooloo nag bu ñu àndee bëgg a defar am na yaakaar ne buñ buñ góorgóorloo toujours yàlla mën naa dogal yàqu-yàqu mën naa bañ a am kon yàlla suñu borom musal ñu seetaan rek ba objectif bi nga xam ne moo ñu tax a jóg te objectif boobu lenn lu may fexe ba nit ñi xam kan mooy Cheikh Sidi Moukhtar moom Cheikh Anta ak xam mi eh, lan lan la taxawe woon ci ci ci ci ci yoonu murid lan la taxawe woon ci côté Sëriñ Tuubaa xam tam dëkkam bii nga teg ko ci ay loxo Daaru Salaam xam ban wàccuwaay la am ci ci ci yoon wi xam tam eh, ban wàccuwaay la am ci réew mi yaakaar naa loolu bu ñu góorgóorloo suñu borom mën nañu koy defal tawfeex dafa guddi moo tax. incha allah ñu ngi sant ñëpp di yëpp ñëpp.